maa ngi nuyu maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp di jéggalu également ci toogaay bi parce que mu ngi bugg yàgg may jiital ci nuyoo bi les délégués de quartier yi nga xamante ne ñoom ñooy suñu ay kilifa ci biir commune bi di ci teg euh, le bureau municipal di nuyu conseil municipal yi fi nekk yëpp ñëw ànd ak man tey may jël nuyoo bi di ko teg ci madame la conseillère spéciale de monsieur le maire madame Anta Niang Touré mu teew mu toog fi tey defe naa ci ñetti ñetti ñetti toogaay toog na fi en tant que marraine de Gaspard Camara mun na fi toog en tant que conseillère municipal mun na fi toog également en tant que conseiller spécial du maire kon am naa yaakaar ne ñetti ndomb yooyu yëpp bu si nekk mun na ko fi teg may nuyu l'ensemble du personnel de gaspar Camara di jël nuyoo bi di ko teg ci docteur Samba je pense que dañu ñëw comme ni ko présidente bi waxee léegi par le biais de Marème Fall bi nga xamante ne ñoo defandoo xale jeunesse socialiste ñu ñëw ñu waxtaan sama bureau ñu wax ma seeni mbébét ma ànd si ak ñoom ba tey jii ñu àndi don bi muy première partie boo xamante ne moom la ñu andi pour Gaspard Camara ma leen di remercier ñoom ñëpp di leen gërëm au nom des population de la commune de Fann Point Amitié di leen gërëm au nom de l'ensemble du personnel de gaspar Camara parce que nag li ñu def dañu ñëw rek fekk si ñu si li nga xamante ne moom moo di suñu démarche au niveau du conseil municipal parce que 2014 bi ma jëlee mairie bi je parle sous le contrôle des conseillers municipaux yi nga xam ne ñu ngi fii toog ndax wax bu nekk dafay am seede dama leen ne dama am ñetti priorité ci sama mandat bi benn bu jëkk bi mooy la santé des populations ñaareel ñaareelu priorité bi mooy l'éducation de nos enfants ñetteeli priorité bi mooy changer le cadre de vie de la commune de Fann Point Amitié am naa yaakaar ni loolu nga xam ne en 2014 digge woon naa ko ak nit ñi su ma juumulee de bañ a sañ naa taxaw tey tey tey buñ ma nee defal bilan ma ne def naa quatre-vingt-quinze pour cent de mes promesses parce que nag damay faral di wax ni benn wax dafa am loo xam ne dama koy faral di wax ba ma ko dalee wax ba tey nit weddeegu ma ba ma dalee wax loo baat boobu ba tey nit weddeegu ma dama faral di wax ne damay dégg ñuy wax ne politique fen la politique sàcc la ma ne du dëgg ndax man biir na ma ne musuma mu musuma sàcc man loolu leer na ma lu ma wax ak nit dinaa ko def lu ma mënul fi nga fi si sa kanam laal koy wax mënuma ko booy bi dem nga dem boo may bàyyi nga bàyyi mais je te dis la vérité fi mu taxaw lu ma mën dinaa ko wax lu ma mënul nag duma la ko dig mais lu ma la ne dinaa ko def demal tëdd na la xam ne sama bakkan bii bu waddul dinaa ko def ndax politique nag ay valeur la politique nag éthique la je pense que politique boo koy xool sax comme ndox la mel li ñuy wax naan l'eau est incolore et inodore politique ak kakatar ñoo yem mbubb boo ni nga mel noonu la sa politique di mel bu dee fenkat nga politique gu fen ngay def bu dee naafeq nga politique gu naafeq ngay def bu dee sàcc nga lu ñu teg nga randal noonu la politique mel rek dige ga nga xam ne dige woon naa ko mun naa wax ne su ma deful léppit mun naa wax ne quatre-vingt-quinze pour cent de mes def naa ko